ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziare bi sahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Bachirou Mbacké di ko ñaanal yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu teweer ñu ngi koy ñaanal Serigne Cheikh Fall jëmb xalifa maam Cheikh Ibrahima bi mu yàgg fi lool te wér ak njabootu maam Cheikh Ibrahima gépp ginnaaw loolu ñoo ngi ñaanal Cheikh Ahmadoul Moukhtar xalifa Cheikh Moustapha Al Karim mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Serigne Mouhamadou Moustapha gépp noonu la ñuy siyaaree Serigne Cheikh mu soxna Waalo moom Cheikh Ibrahima moom Cheikh Mouhamadou Moustapha di soxna wàllum Serigne Saliou di ko ñaanal yàlla sunu borom mu yàgg fi loolu te wér ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul noonu la ñuy siyaaree euh, jëwri ni Touba Argentine Mor Talla Sall waaye noonu la ñuy siyaaree umma islamique bépp jëwri ni Seydina Alhaji malik Sëñ Modou Ba ak Cheikh la Lamine ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi ñu ngi siyaare jullit ñi ci Touba Argentine yëpp rek fu ci jullit nekk rek ak tarixa boo mën di bokk ñoo ngi leen di nuyu di nuyu waa fédération Touba Argentine gépp rek ci moo Mokhtar Sall ak sëñ Bamba mi toftal ci wetam ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoo ngank liggéey bi yëpp rek waaye noonu la ñuy siyaaree diwaanu Daaru Xuddoos muy fédération bi nga xam ne ma nekk ca bopp ba ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne rek ñoo bokk ci fédération bi eh, buñ tuddee waa kër Cheikh Mor Lamine Baara ci turu sëñ Baara ak sëñ Modou Sène waaye tudd sëñ waa kër Cheikh Ismaïla ci sëñ Tedd ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi waaye tudd waa kër sëñ Bàkki Aminta sëriñ Modou sëñ euh, Pape Sod ak sëñ Modou Sey nekk ca bopp ba ak waa mbooleem ñi nga xam ne rek waa kër Serigne Moustapha Mouhamed te Serigne Moustapha Seck nekk ak Serigne Modou Cissé bu sa nekk ca bopp ba mu matale mbooleem ñu bokk ci diwaanu Daaru Xuddoos bépp ci bis bi nga xam ne ajjuma ju tedd ji nga xam ne Euh, ñu fas yéene cee fàttaliku jàmbaari lislaam jàmbaari cheikhul xadim cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim moo tax ñu ciy nuyu mboolem képp koo xam ne rek yaa ngi bokk ci kër googu ci Daara Khoudoss ndax mooy mooy kër Sëñ Tuubaa Daara Khoudoss mooy kër Sëñ Tuubaa kon ñoo ngi ziare mbokki mboolem jullit yëpp mas laa bépp rawatina taalibe Sëriñ Tuubaa yi waaye di jaajëfal baax sañ góora rek mi nga xam ne tubaarkàlla taxawaayam rafet na lool ci bis yu mel nii nga xam ne da koy bàyyi xel bu baax a baax at mu jot rek day euh, da ciy def ay jéego yu am solo ak taxawaay bu matale ci mbooleem communication bi lu jëm ci màggal gi incha allahu taala ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi yëpp rek ñu ngi siyaare waa kër gin bàyyi ko kër sëñ Mortalla Lo ak sëñ Alaaji Lo min àndal ak Baye Modou Suur ak mbooleem rek ñi nga xam ne ñooy waa daara ñoo ngi leen nuyu baax di leen siyaara kon mu mel ne sëñ Góora tey dañ fee daje rek ngir fàttaliku euh, jàmbaari lislaam jàmbaari cheikhul xadim mu mel ne danoo dëgmal bis bu màgg muy bis bi nga xamante ne kenn du ko fàtte te cheikhul xadim doon ko ñaan muy bi bis bi gënoon ci bisam muy bis bi muy dajeeg boroomam muy mu muharram xanaa ñuy déglu ndigal rek euh, ren moom xam naa ndigal la ñuy déglu lépp luñ ci jot ci ndigal rek ñu wéyee ndigal lool allah allahu waaye bu dee wàllu communication moom duñ ko fàtte ndax naka jekk dañ ci daan baaxoo di amal ay fàttali ci jëmm ju tedd jooju Cheikhul Khadim waaye donoom muy Cheikh Mouhamadul Moustapha xam naa kon li ñu njëkkee rek mooy ñuy fàttalante tuuti rek ci jëmm ju sell jooju nga xam ne moom moo doon donné Cheikh Mouhamad donné Cheikhul Khadim mate woon sëkk ab taxawaayam moom Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim jëmm jooju daal lan lan bëgg incha allahu taala ñu ko alxuraan waxee rek ñuy fàttalante ci jikkoom yu sell yooyu ndax royukaay la bu sell ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni Seexul Xadim nekkee woon royukaay bu sell ci yonente bi sallallahu alayhi noonu la nekkee woon royukaay ci Mustafa alayhi salaatu wasalaam doonoon rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom Cheikh Modou Mustafa xarfan bi xarfin comme ni ko Cheikhul Xadim radiyallahu anhu waxee woon te wax ni inda sikri saalihiina tanzilu rahma te saalihiin yi kenn jiitu ci Cheikh Modou Mustafa al kon tey moom la fas yéene incha allahu taala di leen ci indil euh, suñ kemtalaay kàttan euh, ci dundam gu barkeel googu nga xam ne lépp jaamu yàlla la ak liggéeyal cheikhul xadim radiallahu anhu mu mel ne buñ bëggee waxtaane ci cheikh Mouhamadou Moustapha faawu ñu dellu rek ci cosaan ya wala fi mu cosaanoo ak ñi ko meññi ñu gën a xam dëgg dëgg dëgg kan mooy cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim mu mel ne soxna su tedd mooy way juróomu jigéen ñu naan ko soxna Aminta Lo xanaa ñu dikk ci tuuti rek doog a dikk euh, ci euh, lenn ci taarixu Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ci way juróomu tedd woowu nga xam ne soxna Aminta Lo al Mardiya lañ koy wax moom mu bàyyi ko ci kokki ak ndaam nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci diine ak ngor ak lislaam maanaam bu dee diine bu dee ngor lum ci mën di doon rek foofu la fekk baax ci kokki ak ndaam Euh, way juróom moom soxna si euh, Tafsir Maxtaar Bintaloo lañ koy wax waaye way juróom wu jigéen soxna xarit maam Diop ñii nag ñoo seq Seex mu al Karim kon nii rek la Seex Moustapha mën a mel euh, ci way jur yu sell muy Tafsir Maxtaar Binta ak soxna xarit maam Diop waaye nag nekk sëriñ Maxtaar Ndumbe mi sañcoon kokki te Cheikhul Khadim wax ne mooy sangu képp kum jamono kum jamonool jamono rek moom mooy sa sang kooku mooy maami soxna Aminta mii nga xam ne mooy way juru Cheikh Mouhamadul Moustapha ñu naan ko soxna Aminta Lo almardiya waaye liñ ciy gën a dégg rek mooy eh, Cheikh Moustapha dañ ko waajaloon waajal wi ñu ko waajal dañ ko waajal ci cosaan muy ni ko xame moo tax mu mat sëkk nekkoon Kamal ndax eh, way juram liggéeyal na Cheikhul Khadim te dikk gutoon ci kër Cheikhul Khadim ndax xam ngeen ne soxna Aminta nekkoon na fële ca kër ma Madieng Fallou ca Goyaar di fa liggéeyal yàlla. ci kër googu ba yàlla suñu boroom may ko fa takk ndeer nga xam ne moo Cheikh Moustapha ñoo bokk benn jur muy Cheikh Ahmadul Muxtaar di bokk ci di do di di di doom ci soxna amintaloo ak sëñ Madiagne Fallou ca Goyaar wax na ne Seexul Xadim mas naa dem gane ji sëriñ Madiagne foofu ca Goyaar ngan goo xam ne Seexul Xadim sàkk woon na ku laabal ay yéreem Serigne Madieng woo soxna Aminta Lo almardiya jox ko yére Cheikhul Khadim ngir mu laabal yére yooyu wax na ne soxna si façon na ci yére yi wala yàlla suñu borom mayoon na ko bi mu sellalee yére yi ndox mu njëkk ma ba mu xoojee da ko tuur ci am néegam ngir barkeeloo ko ci yére yi ku tedd ko muy Cheikhul Khadim bi mu defaree yére yi ba mu jekk mu jox ko Cheikhul Khadim mu indil ko Serigne Touba Cheikhul Khadim mu jox ko Serigne Madieng mu indil ko Cheikhul Khadim mu laaj ko ne ko kan moo doon toppatoo yére yi mu ne ko soxna Aminta mu ne ko woo ko mu ñëw mu ñëw sukk ci kanam Cheikhul Khadim muy sàkku ci Cheikhul Khadim yàlla may ko ku mel ne Cheikhul Khadim wax na ne Cheikhul Khadim dana ko loolu faat na waaye danañ la defal danaan la ñaanal yàlla suñu borom nga am ñaari doom yoo xam ne ñëpp da leen dégg leen dégg ci àdduna bi mbokk yooyu mbokk yi ñaari yooyu ñu xam ne mooy ñaari banti wala ñaari leer yi seexul xadim yooyu nga xam ne soxna sàkk woon na ko ci seexul xaddim mooy soxna mooy sëriñ Mouhamadul mustafa Mbakke ak cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke boroom guy mbind kon soxna si yàlla mayoon na ko mu liggéeyal seexul xadim ci kër sëñ Madieng Fallo ca Goyaar lu jiitu muy ñëw ci seexul xadim ndax sàkk woon na ci seexul xadim ci sellal yére sëriñ Touba yooyu ku mel ne seexul xadim waaye comme loo sëñ Touba nee na ko faat na. waaye dana la sàkkul ci suñu borom yàlla suñu borom may la ñaari man ñaari leer yoo xamante ne dana leen dégg kon ci leen di dégg ne Cheikh Mouhamadou Moustapha mook Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñoo bokk wenn way juru góor amu jigéen waaye bokk ak Serigne Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne mook Cheikh Mouhamadou Moustapha ñoo bokk seen juru jigéen muy soxna Aminta Lo Cheikh Ahmadul moom lañ duppee Cheikh Ahmadul Muxtaar xalifaf Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim bii nga xam ne moo toog jotaayu Cheikh Moustapha al Karim ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom mu yàgg fi loolu te wér moom Cheikh Ahmadul Muxtaar Mbakke ci barkeb Cheikhul Xadim kon euh, cosaan loolu ak liggéey boobu nga xam ne soxna sàkk woon na ko yàlla suñ borom defaloon na ko ci sëri ci ci ñaan googu mu sàkk woon Serigne Touba ginnaaw bi loolu amee ab diir yàlla suñu borom def sëñ Madiagne ngénn àdduna euh, ñu ñu teg ci ay ab diir euh, soxna Penda Buyo moom ngay dégg naan wasatu soxna Penda moom moo sàkku ci soxna Aminta mu ñëw ci kër Cheikhul Khadim ci la amee seex Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbàkke noonu ko Serigne Touba ñaanale woon moom soxna si kon foofu rek la ñuy dégg ne kii ñuy waaj a waxtaanee wala kii nga xam ne moom la Serigne Touba dénkoon boppam doon donoy Sëñ tubaa kon waajaloon la ba mat sëkk Sëñ Touba da ko bàyyee njaboot gi mu taxaw taxawaay bu am solo um, ñëpp amel ku njukkal nag umma islaami bépp rawatina nag képp ku di taalibe ndax lépp së lépp lépp lépp rek sëñ Modou Moustapha la ginnaaw sëñ tubaa taxawaayam ba matoon na sëkk taxawaay ba matoon na ci ndénkaanul sëriñ Touba la mu ko dénkoon ndénkaan la mooy njaboot gi ak Touba ak jumaa loolu lépp sëriñ Modou Moustapha al Mbacké al Karim taxawoon na ci taxawaay bu am solo ba ñépp xam ne ndénkaanul sëriñ tubaa loolu defe na ne ko ni ko Cheikhul Khadim radiyallahu anhu digale woon moom Cheikh Moustapha al kon bu dëgmalee asrina mu xaram di waajal bis boobu nga xam ne ni ko waxee waaye tey dañuy waxtaane rek eh, lenn ci jikko yi Cheikh Mouhamadou ak lenn ci ganek àddunaam ci nin ko taarixale ndax nit eh, ku mel ne Cheikh Mouhamadou Moustapha booy waxtaan ci moom war nga andi taarix eh, ci moom kon mu mel ne moom dafa doon woon rasulillahi sallallahu alayhi wa xarfan bi xarfin ni ko Cheikhul Khadim waxe woon mu mel bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon àdduna ci la gane àdduna moom Cheikh Moustapha al Karim bisub altene di fukki fan ak benn ci weeru tam xarit bisub altene la feeñ ma nga feeñee ca kërug Serigne Touba gee ñu naan Daaru Salaam ci fukki fan ak benn ci weeru tam xarit ci 1306 dëppoog le 17 septembre 1888 altene fukki fan ak benn ci weeru tam mille trois cent 1306 dëppoo ak le di septembre 1888 la gane àdduna fee ca Daaru Salaam dëkk boobu nga xam ne moom la Serigne Touba njëkk a sanc ci ay dëkk di suuf su barkeel di suuf su tedd mu rafaatale woon ko rakkam ju baax ja maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan di dëkk boo xam ne dëkkub jàmm la dëkkub yéwén la dëkkub leer la dëkkub rawkaay la ijaxal salaamatan taduumu yaa salaam liya yàlla fii daari salaam dëkk boobu fa la Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke gane àdduna noonu ñu ko waxee ci fani wolof yi ak ci fani tubaab yi ci daaru salaam waaye nag dafa tombeek sëriñ tubaab doon sàkku leeru Touba mu mel ne dëkk boobu nga xam ne moom la ñëpp dëgmal di dëkk boo xam ne sëriñ Touba dafa ñaan yàlla ci mat la bul Matlabul Fawzayni ne ko na ko def mu mel ne. turandoom ca àjjana muy Touba di garab bu nekk ci àjjana sëriñ tubaa ñaan fa yàlla suñu borom li mu fa ñaan ci xasida Matlabul ni mu mel ne lépp loo xam ne rek xasida Matlabul Fawzayni indi na ko rek Touba incha allahu taala danañ ko gis ca dëkk boobu nga xam ne mooy dëkku Cheikhul Khadim boobu. mu nekkoon dëkk boo xam ne moo ko gënal ci mboolem ay dëkkam moom Serigne Touba waaye xemmee noon mébétoon dëkk tubaa di jàngale alxuraan ak a jàng alxuraan di jàngale alxuraan. waaye yàlla nattoo ko do nattu boobu nga xam ne moo war lépp lu am tey ëllëg ci nattu boobu nga xam ne ci la ko amee ci la ko amee kon mu mel ne jamono jooju nga xam ne ci 1888 googu eh, da koo fekk nag mu nekk ci Touba googu nga xam ne foofu jumaa ji nekk nga xam ne fi ñu ko def muy béb ga foofu lan foofu la Cheikhul Khadim nekkoon ba gi foofu ci yàlla def nag ci at moomu ci la gis leerug Touba nga xam ne li mu bëggoon lépp yàlla may na ko ko ndax da ko doon wër di ko wër ba yegg si foofu ban xamal ko ne ko fii mooy pàkkub Touba di texe kon mu mel ne feeñu feeñuk Cheikh Moudou Moustapha dafa dëppoog euh, euh, pàkkub gisub pàkkub Touba mag ña nga xam ne yabaloon na leen ñu ñëw di di ko di ko wax si foofu lañ ko fekk ci Touba googu di ko wax ne ko soxna Aminta Lo almardiya am na gan Cheikhul Khadim wëlbatikuwaat ñëw foofu ci Daaru Salaam ba gis ko waaye dafa delluwaat wax na ne bi mu demee ba war a am aw tur euh, yabal na Maam Moor Jaara borom Saam ak sëriñ Bousso bi Bousso ñu jox ko aw tur Maam Jaara borom saam ak sëriñ Bousso bi Bousso ñoom ñooñu nga xam ne ñoom la Seexul Xadim yabaloon ngir ñu ñëw Daaru Salaam ngir jox gan googu nga xam ne mooy doom doomi Soxna Aminta Lo Almardiya mu tudde ko nag ak Seex Muhammadul Moustapha mu tudde ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne euh, tudde na ko mu bokk ak moom mu bokk ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara seen way juróom noonu ñu ko waxee ak Serigne Ahmadou Makhtar Dieng waaye Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikhul Khadim moo ko dalal alxuraanul karim bi mu ci tolloo mu ne ba war a dal alxuraan jàng alxuraan euh, Cheikhul Khadim moo ko dalal alxuraan mi ngi ko dalal alxuraan ca Daaru Rahman ñu naan ko kër Serigne Chouaïbou bu Mbakke ca Daarul Xuddus foofu la ko Cheikhul Khadim dalale alxuraan. Euh, bi mu ko dalee alxuraan ci daarul xudduus muy daaru raxmaan foofu la ko dalalee alxuraan ci kër Serigne bu Mbacké ginnaaw alxuraan jooju nag bi nga xamante ne Serigne Touba mi ngi dem Mbacké Bari yóbbaale na ko mook Cheikh Mouhamadul Fadilu Mbacké ca Mbacké Bari waaye xam ngeen ne bi mu dalee alxuraan. moom Cheikh Cheikh Mouhamadou Moustapha téereb yàlla bu tedd bi ci fukki atam moom Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu dem mu àndoon ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadilu waaye ginnaaw bi delluwaat dem ci géej gi nag la tàggoog ñoom mu delluwaat bi bi mu leen dénkee maam Thierno Ibrahima Fati ba pare nag moom Cheikh Mouhamadou Moussa dafa delluwaat dafa dem kër Serigne Dame Abdourahmane foofu la nekk di jàng alxuraanul di yeggale njàngum xam ci kër Serigne Dame Abdourahmane bi nga xamante ne Serigne Touba dem na ci géej géej kaamilam bi nga ne moo doon kaamilu Cheikh bi nga xam ne moom Cheikh Moustapha bind na ko mi ngi fekk Serigne Touba ci géej gi ku naan sëñ Abdoulahi Ndour bi mu dem moo yóbbu kaamilu sëriñ Mouhamadul Moustapha jox ko Seexul ci géej gi sëriñ Tuubaa wax ne na am njàngam njàngum xam maanaam maa yomba Gabon moo yóbbu kaamilub Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bi nga xam ne bi mu tolloo ci fukki at la ko bind mokkal ko bi mu demee Serigne Touba jox ndigal Cheikh Mouhamadou Moustapha mu dem ci maam Thierno Ibrahima ñu jox ko maam Thierno Ibrahima ak sëriñ Maam Mor Jaara ngir mu yeggale fa njàngum xam-xamam euh, kon noonu la def nekke noonu ci ñoom muy maam Thierno Ibrahima ak maam Mor Jaara di yeggale njàngum xam-xamam euh, bi sëriñ Touba ñibbisee nag la 11 novembre 1902 euh, ba ci 1903 bi mu dem gànnaar bi sëriñ tubaa demee gànnaar woolu na leen moo Cheikh Moustapha Al ak Cheikh Mouhamadul Fadilu ngir ñu nekk foofu gànnaar ngir gëstuwaat lenn ci xam-xam yi foofu ci réewum mortani bi Serigne Touba ñëwee 1907 bi mu dem Thièyène Jolof Cheikh Mouhamadou Moustapha nekkoon na Thièyène ak Cheikh euh, moom moom it nekkoon na ci juróom Cheikhul Khadim ca Thièyène waaye xam ngeen ne euh, Serigne Touba fu mu a nekk rek. Cheikh Mamadou Moustapha ànd na fa ak moom ndax bu dee kaamil bi fekk na ko ci géej gi waaye mu jox ko ndigal mu dem ci maam Thierno ak sëriñ maam Mor Diarra yeggale fa njàngum xam-xamam 1903 bi mu dem Gabon bi mu dem Mauritanie ànd na ak ñoom dem Mauritanie ngir ñu gëstu fa ci fànni xam yi waaye bi mu dikkee téye nit Cheikh Mamadou Moustapha dafa continuer nekk ci way juróom waaye laxasu nag di def lépp loo xam ne kuy wut ngërëm ci kër Sëñ Tuubaa di di def mu def ko moom Cheikh Moustapha xam ngeen ne bàyyil na Serigne Touba sàqal na ko lépp loo xam ne rek ña nekkoon ca kër lépp loo xam ne ni def na ko ci kër Cheikhul Khadim ba Cheikh Cheikh Mouhamadou Moustapha def na ko ci kër way juróom muy Cheikhul Khadim te Cheikhul Khadim di way juróom kon nga xam ne bi mu nekkee ci yéen dafa laxasu topp ci ginnaaw ñépp ba wax nañ ne sax turu njañ mi njañ loolu moo ko indi woon ngir bopp bi mu saqaloon ngir nekk di nur nuru taalibe ngir liggéeyal way juróom woowu moom cheikhul xadim ba foofu sax wax na ne ci la sëriñ tubaa dajalee woowee woon sëriñ mouhamadou fadilu ak sëriñ moo roqaye buso ak sëriñ masamba mbàkke di leen wax ne man de eh, du ma way jur ci kenn du ma bàyyi kenn waaye duma magi kenn waaye du ma nijaayi kenn ba mu ko waxee cheikh mamadou moustapha ak cheikh mamadou fadilu dañoo génn ndax ñoom ñooy doom yi moom la moom la ko doon toppee képp koo xam ne rek ak ku man di doon ak ku jariñu Serigne Touba rek yaa ngi jariñoo ci pas-pas Serigne ci sa pas-pas ak sa jaayante gi nga ak Serigne moo tax jaayante lu am solo la euh, ñu bàyyi ko xel bu baax muy jaayante ndax ci lislaam ca saxaaba yi la njëkkee euh, Serigne Touba bi jaayante yàlla ak Moustapha waaye ñi nga xam ne ginnaaw euh, Serigne Touba dañ koo toppoon ñoom ñëpp ci jaayante ak Cheikhul Khadim lu am rek ci jaayante googu lan ko amee mu mel ne kon foofu la jaayanteek sëriñ tubaa ak Cheikh Mahamadul Fadil ak ñoom ñëpp jaay seenu njureel jënd woon ko ak taalube laxasu nekk ci seen way juróow di ko liggéeyal waaye nag ba 1912 ma si Ila Jurbel bi Serigne Touba di dem Jurbel it dafa àndoon ak moom ak Cheikh Mahamadul Fadilu ñu del si ñu ñëw njaareem ca Boqatul Mubaraka booba sax sañcagul Boqatul Mubaraka waaye eh, mi ngi woon foofu ci kër commandant bi ginnaaw bi ci la Serigne ne diis ba foofu ci xur wi mu sanc fa barab bu tedd tudde ko haasa haasihi hiya al boqatul mubaraka daal di koy tudde ne lii mooy pàkku suñu borom bu barkeel bi muy bokk boqatul mubaraka di dëkk boo xam ne euh, euh, bokk na ci goxi suñu borom yi gënoon a lëndëm waaye bi fa Sëriñ Tuubaa ñëwee bokk na ci danaa mooy leer yi nga xam ne fu leer bàyyi koo rek ci leeru njaareem lay bàyyi koo ngir fukki ati juróom ak juróom yoo xam ne Cheikhul Khadim am na ko foofu ci njaareem yoo xam ne fukki at yoo xam ne yu sell yu yàlla gërëm la yoo xam ne alquranul karim rek mooy jib ci biir kër gi dem na ba Seexul Xadim wax ne fepp suuf bu nekk njaareem rek day mel ne taxawaayu kaamil ngir alquranul karim ak jaamu yàlla gu sell ak liggéey buy sell boo xam ne Serigne Touba doon na ko def foofu ci boqatul mubaarak waaye bi ñu ba 1913 1913 nag la ko jox ndigal moom Serigne Touba mu dem sanc dëkk bu tudd euh, Tindodi di la Cheikh Mouhamadou Moustapha sanc Cheikh Mouhamadul Fadilu dem sanc Ndindi mu mel ne kon euh, euh, dañu dañuñu rek di laxasaayu topp seen way juróow di ko liggéeyal euh, seen kemtalaay kattan ni ñu ko doon liggéeyee ba ba nekkeek moom waaye bi mu leen joxee ndigal ñu sanc ay dëkkit dañ faa nekkoon lépp loo xam ne liggéey nañ ko rek di ko andil Cheikhul Khadim noonu la Cheikh Mouhamadou Moustapha nekke woon topp ci way juróom woowu di ko liggéeyal guddi ak bëccëg ba lakk ngërëmam moom Cheikh Moustapha al Karim yàlla na ko yàlla fayal Euh, ba 1927 nag euh, le 19 juillet 1927 ci la dogal bu ñëwee ci njaareem muy bis bi nga xam ne moom la ñu waajal te asriina muharram xam naa incha allahu taala danañ ci ñëw ca fan yi kanam ci waxtaan tey dañ koo jagleeloon rek euh, fàttaliku jàmbaari lislaam jàmbaari cheikhul xadim jooju muy cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim ginnaaw bi nga xamante nag sëriñ bi génn na àdduna ci zaahir mu toppatoo ko taxawu ko def jox def ndigal la nga xam ne moom la ko sëriñ waa waxoon muy. Eh, na nga ma yóbbu tubaa te bu xaddam eh, muy lu yéeme ndax kër ga eh, feesoon na dell ci njaareem ak li ko wër te te lu ëpp juróomi nii rek yëgunu ko ca kër ga ba mu dem tubaa te ba mu demee Toubaat ñaar fukki nit ak juróom-ñett ci ay kilifa yu ñu ràññee wax na ne ñoo ko fekkee kon loolu lépp ci matuk sëñ Mourou Moustapha gi matoon zahir ak baatin ñu waajaloon ko mu ba mat sëkk nekk Kamal te sëñ Touba doyloo woon ko ci dénk ko boppam bàyyee ginnaaw bàyyee ko lépp. kon ci matam ci la euh, defe loolu ak jumaay Tuubaa ji waaye ginnaaw loolu mu taxaw nag taxawaay bu am bu am solo moom sëñ Mor Moustapha ginnaaw Cheikhul Khadim taxawaay bi mu njëkk bi mu war a taxaw bi mu njëkk a taxaw mooy euh, comme suuf si di Touba euh, Serigne Touba moo ko boppam muy dëkk boo xam ne kenn mus sa gis ci àdduna ko sanc ab dëkk ci 1888 ba ba 2020 mu màgge nii tubaa màggee loolu moom euh, kenn mësu koo dégg kenn mësu koo gisit ku du sëriñ tubaa ndax euh, pàkk la boo xam ne pàkk bu sell la pàkk bu tedd la ku du Seexul Xadiim mënu ko noonu moom waaye bi mu dikkee di borom yàlla suñu borom wan na ko leer gi xamal ko ne ko nii lay mel waaye nii bu ëllëgee noonu la dëkk bay mel muy tuubaa mu mel ne lam njëkk a def moom mooy aar suuf sa ba moomal ko boppam muy lu yéeme di lu jafe ndax jamono jooju du Senghor ak ko may du kenn ko ko may ndax boobu Sénégal moomut boppam ndax 1929 la 1928 29 ci la jógee dem ci colonialiste bi ndax jamono jooju jamono yi colonialiste bi la ndax xam ngeen ne Cheikh Khadim résidence surveillée la newoon ci Njaareem ginnaaw bi mu bàyyi ko njaareem sëñ Mourou Moussa andi ko tubaa dañut ñoom di moom ñu ñàkk moom suñu bopp tubaab bi ñoo yilifoon senegal muy lu jafe mu xam ne lii di bëggu Serigne tubaa ndax dikk na Touba te dootu dellu te tubaa bi xamoon nan ne xamoon nan ne Cheikhul Khadim fu mu nekk maanaam mooy capitalu mouridisme moo tax bi mu nekkee njaareem njaareem di riir mboolem commerçant yi naari libaane yi ñu ngi installé woon njaareem ngir dafa sew Seexul Xadim nekk ndax foofa la commerce ba doon doxe ndax bari woon na ay oto yoo xam ne dañuy bàyyi ko ci Sénégal fu fu nekk Sénégal di ñëw njaareem ndax taalib bii daan seet Sëriñ Tuubaa njaareem ndax dafa waxoon ne wallaahu yansuru nii wal xalqu tatbau nii fil bari wal bahri saa naf in bila dararin yàlla dimbali na ma ma yore njariñ wallaahu yansuru nii wal xalqu tatbau nii maanaam mbindeef ma topp ci géej gi ak ci jéer yi fu ma nekk rek ñu di ma fa fekk ndax damaa yore njariñ lu ànd ak lor waaw njariñ loolu nag te ànd lor moo tax fu mu mën di nekk moom Cheikhul Khadim ba mu nekkee Gabon jaayante bi bari woon na lool Cheikh Mamadou Lo Diop Dagana fukki weer ak ñaar ak maam Cheikh moom fa woolu woon mu nekkee Mourtani mag ñi doon doxee Sénégal di dem Mourtani di ko fa fekk moom Cheikhul Khadim mu leen di wax waxam juréeyam jooju doon wax ci ñoom bi mu nekkee Thiéyène tubaab bi di tere ku dem Thiéyène nga xam ne wax na ne ku fekk ca këru ceen ga dañ lay dóor am na naari gànnaar yoo xam dem nañ bay def aw way ngir dóor yu metti yi leen tubaab yi daan dóor ci nekk gu nekk ak Cheikhul Khadim waaye bi mu dikkee njaareem bokk atum mubaarakaat tubaab yi mayuñu ko loolu dañ ko ne woon ñaar nit ak juróom wala fanweeri nit ñooy nekk ci yow ci njaareem sëriñ Tuubaa ne ñëpp xaafisul alxuraan la doon maanaam ñin ma may ñu war a mën a nekk ak man ci biir kër gi ñëpp ah xaafisul alxuraan la ñuy doon jàngkati ñoo ñoo daroon sëriñ ci njaareem kon mu mel ne tubaab yi xamoon nañ ci zahir ne seexul xadim jëmmam ji fu mu nekk mooy nekk capital murid waaye bu génnee àdduna bu fi jógee fu mu man di nekkit mooy nekk capital mouridisme tey benn réew wala benn dëkk du ko ëpp doole ci Sénégal loolu ñoom tubaab yi li ñu doon kàccoor kàccoor xamoon nañ ne seexul xaddiim fu mu mujj rek fa la léppi mujj moo taxoon ñu doon bàyyi jëmmam ju sell ja def ko résidence surveillée waaye ci matuk Cheikh Modou mu Al Karim ci lim xamoon ak li ko yàlla mayoon ak te gi mu amoon dem na ci tubaab bi ba wax ko lam koy wax tam yëg ko te wax na ne ko def na ko te dana dem day dem ca dëkkam boobee di Touba kon noonu la ko indee ci Touba waaye ñaareel bi lim lim ci njëkk a teg nag mooy fexe ba li nga xam ne mooy fi suuf si Serigne tëdd nga xam ne kenn waru koo moom ku du Cheikhul Khadim di ndonoom di ndonooy waa këram ñu mën koo moom grâce à Cheikh Mamadou Moustapha moo ci taxaw taxawaay bu mat sëkk dem titre foncé ko ci 5 kilomètres. kilomètre bu ne ñu jaay ko 1 million mu nekk 10 millions maanaam mu nekk kilomètre bu ne ñu jaay ko ko un million ci cinq kilomètres carrés yi nga xam ne jamono jooju moom la Cheikh Mamadou Moustapha collecté Touba muy 5 kilomètres carrés yoo xam ne ci moomeelu Cheikhul Khadim def ko ci turu Serigne Touba nag ñu signal ko ko Touba bi signal ko ko kon euh, Touba euh, dëkk la boo xam ne euh, négut ba léegi rek muy doog moom boppam te koo moomoon te ba mu koy moom jafe na ndax booba Sénégal moomut boppam. ca la amee woon kayit titre foncier ba titre foncier yi yokk ba tubaa gën a baajewu yokk ci ndimbalul Serigne Saliou ak Cheikh maître Abdoulaye Wade yooyu yëpp muy loo xam ne eh, Serigne tubaa ñaanoon na ko suñu borom muy pàkk boo xam ne pàkkam lay doon boo xam ne pàkkub lislaam lay doon lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu taxul xaraar wa inni ahmadu nga xam ne moom dara andiwu ko fi woon du yeesal sunna Moustapha alayhi salaatu wa kon li doon bëggu Serigne rek. mooy euh, barabam boobu mu wax muy jumaa ji te xam na ne jumaa bala moom bala mu ko mën a taxawal ci jamono tubaab bi faw nga moom si suuf ndax boo moomul sa suuf doo fa mën a taxawal jumaa loolu moo waral euh, mu dem loolu moo waral mu fexe ba moom suuf si euh, titre foncier ko doog nag ñaani autorisation boo xam ne day mën a taxawal noonu mu ko bëggee ci ndigalul Cheikhul Khadim muy jumaa ji autorisation yi boobu nag mu mu am ci ay jafe-jafe yu bari ci autorisation boobu ndax eh, juma la koy taxawal wala lay tax mu man mu manu mooy matériel bi nga xam ne day bàyyi ko ci barab yi di ñëw ci jumaa ji oto du ko indi loolu saxaar rek moo ko mën a indi te gis xam ngeen ne eh, jamonoy tubaab yi eh, Touba booba melagul ni mu mel tubaab bi amunu intérêt ci defar raay bu jógee njaareem jëm Touba danoo defar raay yi nga xam ne ñoo doon dox Sénégal ñëw ba njaareem rek ñu yamale ko fa waaye bi mu ñaane autorisation te mun na koo gàntal ci dogalu suñu borom ban jox autorisation bi liñ ko njëkk a gàntal rek mooy may nañ la autorisation raay may nañ la autorisation tabax juma waaye raay bi nga xam ne moom moom moom faw mu am ndax matériel yi ci la mën a euh, duggee Touba ndax li ko indi saxaar la euh, gàntal gi ñu ko njëkk a wax mooy équipe bu ko gas moom amu fi waaye boo ko gasee ba pare nag moom ñu ñun la ca des ñoo koy def muy tegu raay bi kon mu mel ne ne taxawee na ci taxawoo na ci taxawaay boo xam ne euh, bu mat sëkk la ndax metti woon na jamono metti woon na euh, cent 1929 do Seexul Xaddim di deewu génn ci àdduna ci saayir mu metti lool daa nekk di crise bu metti ci jamono jooju kenn talu dara waaye ndigalul Sëriñ Tubaa lim ko digaloon moom amu talutoon dara loolu lépp loo xam ne rek luy tax loola am Cheikh Modou Moustapha bañu ko woon dana ko def dana ca taxaw lépp loo xam ne teg nañ ko ko dana ko dana ko jaral euh, bi mu ko ko waxee mu ne leen manu na waaye wax nañ ne dafa ñëw woote njabootu Cheikhul Khadim ne leen may nan ma autorisation waaye eh, li nga xam ne moom moo jëm ci liñ bëgg muy jumaa ji dafa am lu ci dis mooy diggante njaareem ak Touba ci wàllu raay bi mu waxtaan ak mag ñi ndax tubaab bi nee na amut lu ko gas te yaa wax na ne junni ak juróomi téeméer ñooy personne bi nga xam ne mënut a ñàkk ci gasum raay bi muy lu doy waar eh, bi mu ko waxee mag ñi ñoom ñëpp ñu rafetlu ko jaayante kenn ku ci nekk rek ci mag ñi ak rak magi rakki seew xadim ak taalibe yi kenn ku ne jaayante sa mbooloo waaye ka ëpp la ca mbooloo ya mooy maam Cheikh Ibrahima Fall eh, baabul muridina moom moo joxe juróom-ñaari téeméer bu ko defee la ci des ci mag ñi ak taalibe yi ñu mottali lim ba ba mat junni ak juróomi téeméer eh, Cheikh Moustapha ñëw ne ko am nan personnel boo xam ne mën na noo gas gasum raay bi jëme jële ko njaareem jëme ko Touba euh, bi mu ko waxee loolu mu ne ko nag la ca disaat mooy kilomètres yi dañ la koy jaay diggante Touba ak njaareem kilomètre bu ne ñu ngi la koy jaay ñeent fukki junni deux cent mille looloot gàllankoor lañ ca bëggoon moo taxoon ñu ne ko te taalibi te ay taalibeem la waaye da ko wax ne ko li ñu nekk say taalibi yëpp danga leen di fay ah maanaam danga may da ngay fay da nga nuy fay kilomètre bu ne ñeent fukki junni ci loolu ñun ci la ñuy fay ñiy liggéey waaye wax na ne ñoom ñu doon liggéey lu ñu leen fay bu ngoonee ñu dellusiwaat joxaat ko Cheikh Ahmadou Moustapha addiya ndax ñoom ay taalibeem la waaye tubaab yi ñoo nanguwul ngay liggéeyal doomu aadama te fayoo waaye Cheikh Ahmadou Moustapha nangu na euh, pay gu payoor googu ba wax na ne 10 million la fay ci fay maanaam xaalis bépp bi ñu ko totaalee mi ngi toll ci 10 millions muy ci jamono jooju. muy taxawaay bu am solo boo xam ne ñun ñëpp war nañ koo xam war koy fàttaliku ngir xam ne Cheikh mu Moustapha ginnaaw Cheikhul Khadim lu ne daj na ko ci taxawal lii nga xam ne mooy ndénkaanu Serigne Touba li nga xam ne euh, bu toon mooma kenn du bu toon mooma li ko Serigne Touba rek bu ma bu ma bu ngeen fexee ba dem ma Touba dana mel ne demul lu ma leen fenn waaye su ngeen fexee ba ma dem Touba euh, jumaa ji ngeen taxawal ma ko euh, lépp loo xam ne lu ngeen bëgg la rek da ngeen ko am kon loolu daa mel ne kon képp ku jariñu ginnaaw cheikhul xadim ci Serigne Touba eh, nan ko jaajëfale njukkale ko a cheikh Moustapha al mu nangu tubaab bi ne ko ñi nga xam ne tamit ñooy liggéey ci wàllu gas bi dafa metti ñoom du lekk ceeb bu gisee dana lekk ceeb boo xam ne day ànd ak ndawal loolu lépp nag ci ay sart yuy tax rek mu gën a metti waaye cheikh Moudou saa moom dane bu waxoon ne ne ne tubaab bi waxoon ne solo ji soldaar mooy tax <laughs> jumaay tubaa ji taxaw Cheikh Mouhamadou Moussa dana nangu kon eh, eh, loola da koo nangu eh, mu wax ñu wax ne li nga xam ne mooy moo doon wàllu tabax bi ñu ngi ko commencé 29 1929 waaye 1931 la pare mu mel ne kon gas bi rek jël na ñaari at waaye tubaab bi moom li mu àppaloon Cheikh Mouhamadou Moussa mooy juróom-ñaari at ngir jàpp na ne fukki nit <laughs> fukki téeméer fukki maanaam junneeg juróomi téeméer diggante njaareem ak Touba moom munu na koo gas ci lu yées juróom-ñaari te bu fekkente ne tamit juróom-ñaari yi ñu la jox la maanaam yëggut maanaam dañ koy annulé maanaam dañ cee da koo mayoon dañ koo mayoon waaye euh, dañ cee dugal ay jafe-jafe yaakaar ne jafe-jafe xaalis dana tax mu mu mu génnaat ci ñaareel ba tamit mooy dale bi ñu ko jox jàpp nañ ne maanaam mun ko cee def waaye nga xam ne kon Pastef yàgg na ci yoonu murit ndax da ñu am pas-pas ak Pastef ci lañ doon dajale loolu ci seenu ñaq di ko jox Cheikh Mamadou Moustapha di ko jox tubaab bi di ko fay waaye ci seen pas-pas ak seen pasteef ci lan gase gas bi ci ñaari at ñu wax ne lépp li nga xam ne moo doon ceeb ba wax na ne 450 tonnes Cheikh Mamadou Moustapha joxe woon na ko ci diir ngasum bi ci wàllu xéwal gi nga xam ne moom la doon xéwloo eh, ñu wax ne eh, lu wa li jëm ci wàllu nag yi ñaari junni la ak ñaar fukk maanaam ñaari junni nag ak ñaar fukk moom lañ doon consommé ci diiru gas bi ci diir bépp 450 tonnes ceeb ak ñaar fukk junni ak ñaari junni yi nag ak ñaar fukk bu dee wàllu diw gi mi ngi nekkoon junni barigo junni barigo ci diw ak juróom benn fukki barigo ak ñett ak juróom fukk ci ay litres hmm. cinquante tonnes ci ceeb ñaari ju ñaari junni nag ak ñaar fukk junni barigoy diwlin ak juróom benn fukk ki barigo ak ñett ak juróom benn fukk ak juróom fukki litre loolu mooy li nga xamante ne Cheikh Moudou Moustapha génne woon na ko dépassé ko ci fexe ba rek euh, li nga xam ne mooy yëwënal wala mooy yombal gas bi diggante tuubaa ak njaareem buñ pare nag tubaab bi doog a jël ay matukaayam moom pour mën a teg raay bi waaye ci biir gas ba wax na ne bi ñu tolloon lu la gis nañ benn oto muy ñëw wax na ne bi mu yegsee ñu wax ne kooku maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw na foofu ci bi ñu tolloo ndula jëm Touba wax na ne bi mu wàccee da nuyoo ñoom dafa nuyoo ñoom ne asalaamaaleykum ba mu ñetti yoon mu ne ah doom ndax gis ngeen ma ñu ne ko faal gis na la mu ne yéen gis naa leen ba léegi na ngeen ma seereel ne ta fekkee woon naa jot gasum raayam liggéeyu Seexul Xadim boobu daal di wax ne ñu jox ko liñ doon liggéeyee mu tàbbi ci biir pax mi tibb ñaari peel daan ne daal di génn daan ne ah liggéeyal Serigne Touba de képp koo xam ne yónni na ci sa doom bu dikkee di sa bàyyi ku ci yónni sa soxna bu dikkee di sa boroom kër ku sa yónni ku sa yónni sa sa sa sa sa jaam wala wala wala waaw bu dikkee bu dikkee di sa sang maanaam booba dañ leen fàttali lan moo nekk ci liggéeyal Serigne Touba. ne leen seen pënd bi maa ngi koy gis ba aras maanaam pënd bi ñu doon liggéey ñoom gaskat yooyu maam Cheikh Ibra leen seen pënd bi de maa ngi koy gis ba aras ngir kawe goo xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi kawe na ko ndax sikkuun ne Sëriñ Tuubaa la moo tax mu ñëw fa moom maam Cheikh wàcc ci biir pax mi tibb ñaari peel sànni génn daal leen di wax waxam ju siiw jooju yi nga xam ne moom leen waxoon ci liggéeyam Serigne Touba daal di delluwaat wax nañ ne ba talaata del delsee ci la wàcc liggéey kon nga xam ne moom ci liggéeyal Serigne Touba rek moom maam Cheikh Ibra Fall ci la nekk ba wuy ji boroomam yàlla na ko yàlla euh, euh, fay yàlla na ko yàlla fayal ci barkeb Cheikhul Khadim waaye wax na ne ñi doon liggéey raay bet bàyyi ko woon na foofu ci gas bi biñ tolloo nu paasee ba nduloo am na bis boo xam ne dañ ko doon noppalu waaye seet si woon nañ Cheikh Modou Moustapha Touba biñ dikkee ba ñëw siyaare si ko mu wax na leen na ngeen jaar ci Cheikh dul Fadel ngeen siyaare ko ban ko siyaare pare Cheikh Modou Fadel leen dem leen ci armeel yi ngeen dugg fa ban waa armeel yi xam ne ñi doon gas raay bi ñëw nañ fi kon nga xam ne ñoom médaille yu rëy lañ yor ay maqaama yu rëy rëy lañ yor maanaam ngasum raay ba képp koo xam ne fekke woon nga ko rek médaille la moo xam ne garaat la boo xam ne pour rëy rëy rëy ndax dara gënu koo kawe ndax lépp loo xam ne rek sababu matuk jumaa yi Tuuba wala sababu la sababoo ca jumaa yi Tuuba la ko sabab yéen ko ñoo ko def loola loola maqaama la martaba la tuyaaba ju réy réy réy yàlla na leen yàlla yàlla nu yàlla fayal mag ñoo ñu nga xam ne ñoo jiite woon gas boobu nga xam ne moo doon gasu raay bi nga xam ne euh, euh, sëñ Mouhamadul Bachiru moom moo nekkoon jëwriñ ja nga xam ne wax na ne fu ma sa tool rek dañ koy mbaaral am mbaar mu moom Cheikh Mamadou Bachir moom la Cheikh Mamadou Moustapha joxoon ndigal ngir mu nekk ci seen kanam nekkoon seen jëwrin ngir liggéeyal Cheikhul Khadim Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké baraay bi yegg si foofu ci gaar bi waaye waxoon na sëñ Mourou Moussa ne ko euh, buy ñëw sëñ Mourou xamoon na ne sëñ Touba na ko wax ne ko euh, jumaa ji buy taxaw la fay indi lay jëm ci kii ba yu maanaam yëngu bi bu mu si ci man moo tax Cheikh mu Moussa yamale ko gaar ba nga xam ne saxaar gi bu masaa ñëw lu mu korne korne korne gi du yegg si fee Seexul Xadim tëdd ca Touba muy fee ca jumaay Touba ja moo tax ñu yemale woon gaar bi ñu yemale woon saxaar gi foofu ci gaar ba kon mu mel ne taxawaay boobu la Cheikh Mouhamadou Moustapha def ci 1928 jàpp 1929 ba 1931 ci la 1931 nag ci la euh, alterné le 11 novembre 1929 ba samedi le 14 février 1931 moom moom moo doon euh, gasub raay bi saxaar gi mi ngi njëkk a ñëw Touba samedi bisub samedi la 4 euh, mars 1931 maanaam bi raay bi pare bi ga bi gasee raay bi euh, teg raay bi maanaam bi gasee ngas mi ba teg raay bi saxaar gi njëkk ñëw Touba nga xam ne moo doon bisub inauguration bi nga xam ne gouverneur général moo jógee Dakar jaar Njaareem mm, Seexul Xaddim yéeg ci première vago bi ànd ak tubaab yi ñu ci dis yéeg ci yeneen vago yi wax nañ ne ñu ñëw Touba keroog wax na ne tubaa fees na dell te mboolem lépp luy xeeti berne rek Cheikh mu sawaa defoon na ko waaye wax nañ ne kanam nga belli woon na ngir mbégte mu am ci saxaar gi xam ne jóge na boq boqatul mubaaraka yegg si tubaa ca gaar ba ci li nga xam ne mooy ndigalul Serigne tuwaay yi ci la war ci la xamee ne nag ne euh, euh, li Serigne Touba bëggoon mooy ak bëggam incha allahu taala dana am ndax ngantal moom mënut a am ndax titre foncier ne Touba ci 5 kilomètres carrés waaye fexe na ba aw yoon woo xam ne mooy indi matériel bi jëm ci jumaa ji mën a ñëw ci le 14 bisub samedi 14 mars 1931 la njëkk a ñëw Touba moom saxaar gi ñu koy intégré waaye mu yabal mu di jox leen ndigal ñu dem ndokk ngir ñu mën faa wuti xeer bi nga xam ne moo war a tabax moo war a tabax eh, jumaa ji muy carrière ndokk boobu eh, ginnaaw loolu nag mille 1350 ci gàddaay gi bisub di korite ajjuma la 11 fukki fan ak benn ci weeru kori te bisub ajjuma eh, ci 1931 de tolloog le 19 février 1932 maanaam le 19 février 1932 fukki fan ak benn ci weeru korité 1350 la Serigne Modou Moustapha joxoon ndigal Serigne Mbacke Bousso ak Serigne Mouhamadou Baaxir Bousso ñu ñëw ci jumaa ñu ñëw foofu ci bépp gi ngir la ndax Serigne Touba Serigne Mbacke Bousso la dénkoon lu jëm ci wàllu xib jumaa ji maanaam l'islam bi moo tax moom moo rëdd jumaa ji moo ko laal moo tax euh, ñu sant Bousso waa kër euh, Serigne Mbacke Bousso ñoom ñoo féete ci lépp loo xam ne rek. lu jëm la ci wàllu lislaam ci jumaa jeeg yëpp rek ba ci matlabul euh, muxaddamatul xidma ñoom ñëpp euh, ñoom ñoo féete ci liggéey boobu kon bisub euh, le 19 février 1930 dëppoo bisub ajjuma fukki fan ak benn ci ci weeru korité cinquante ci gàddaay gi la Serigne Mbacke Bousso ak Serigne Mouhamadou Baaxir Bousso ñëwoon xiblaal barab boobu muy jumaay jumaay Touba ci penku bi ngir xiblaal ko waaye ci 1350 ci ci gàddaay gi tolloog bisub talaata ci fukki fat ak juróom ci weeru korite euh, dëppoog mardi la 23 février 1932 ci la sëñ Modou Moustapha joxoon ndigal ku naan biram euh, ku naan biram saw ngir mu dagg garab googu nga xam ne mooy bépp gi nga xam ne moom fala Cheikhul Khadim nekkoon moom la naan bépp gi ndax moom moo nekkoon foofu ci jumaa ji kon ci bis boobu tamit ci la Cheikh Modou Moustapha joxe ndigal ngir biram saw dagg bépp gi waaye ci bisub ajjuma boobu la vingt 25 ñaar fukki fan juróom ci weeru korité ci 1350 ci gàddaay gi tolloog bisub ajjuma la 4 mars 1932 ci la teegu xeeru jumaay Touba bis boobu nag mooy bis bu màgg di bis boo xam ne kenn dootu ko fàtte ci histoire murit mooy bis bi Cheikh mu Moustapha génnee ànd ak Cheikh Mouhamadou Fadil ak Cheikh Mouhamadou Bachir ak mboolem ak sëñ Massamba ak ñoom ñëpp ngir ñëw ci urumu Touba ngir teg xeer yi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne mooy taax mi nga xam ne mooy jumaa ji nga xam ne Serigne Touba nee na képp ku ci feeñ dootoo nëbbu waaye ku ci nëbbu dootoo feeñ waaye Serigne Touba nee na yàlla def tabaxal na ko wanoon na ko tabax boo xam ne kenn du ko buddi kenn du ko nërmeel nee na noonu lay taxawee ba àjjana mooy yi tubaa bis boobu nag ci la 4 mars bisu àjjuma 1932 ci la Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ànd ak mboolem mbokk yi. ànd ak mbooleem taalibe yi ñuy taxaw di def di taxawal di def ndigal li nga xam ne ndigalul Serigne Touba la te Serigne Touba yàlla wanoon ko ko ca ba mu nekkee ca Mayomba ca kàrce ga ca fan ko njëkk wàcce muy Limbarville doon fa def ay jàkka ñu ñëw tisaare ko ne ko jàkk xaju fi yàlla suñu borom xamal ko ne ko da am ñaari jumaa ci réew ma muy daga nga tabax jumaa ju mag fa njaareem waaye da tabax jumaa ju rëy fa njaareem te kenn du ko buddi kenn du ko narmeel ndigal loolu nag eh, Serigne Touba xamoon na ne ala kulli xaal yàlla dana ko ko tab dana ko ko wan waaye dana ko jox ko def eh, bu ko nit ñi defut jinne yi ak malaaka yi danañ ko taxawal taxawal taxawaay danañ ko taxawal tabax bu mag boobu nga xam ne juróomi jaxañu lay am muy jumaay tubaa muy jumaa joo xam ne yàlla suñu borom may na Serigne Touba lépp loo xam ne ñaanoon na ko rek ca Matlabul ni mu jëm ci taxawaay ba ñu war a taxawee ca bis ca ca dëkk ba ak ca jumaa ja ak ca mbooloo ma yàlla suñu borom defal ko ko kon ci bis boobu nag di la 4 mars 1932 la Serigne Modou Moustapha jox ndigal ku naan Bamba sàmb mu tooyal euh, tureel ba testament ba jox ko Cheikh Moustapha Al Karim mu teg première pose xeeru jumaay Touba kon mu mel ne lii bokk na ci nga xam ne ginnaaw Cheikhul Khadim Cheikh Modou Moustapha taxawaay taxaw taxawee na ko muy taxawaay bu am solo nag bu matale ndax lépp loo lépp lu la wax ci lii rek eh, eh, kenn mus koo dégg ci àdduna maanaam jàpp tubaab yi jàppoon na ne maanaam eh, ngasum raay moom maanaam yoonu saxaar ku dul état mënu ko waaw maanaam ñoom musunoo xalaat ne sëñ Tuubaa ah, bàyyi na fi koo xam ne wala bàyyi na fi ay murit yoo xam ne ginnaawam danañ ko mën a taxaw ba yóbbu ko Tuubaa te ñoom duñ ko sañ a bañ waaye li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy liñ bëgg muy autorisation yëpp yàlla suñu borom tàggat tàggat leen ban ba ban man koo am nin ko bëggee ci tubaab bi te dara xewut ba pare li ci gën a yéeme mooy taxawal lu toll ne 45 kilomètres wala 48 kilomètres muy diggante Njaaréem ak Touba te benn dërëm boo xam ne bàyyi koo na ci Euh, Fran euh, ci ci Cologne bi jamonoy Cologne bi euh, am amut lépp taalibe sëñ Mourou sawaa ak taalibe Serigne Touba ñoo ko jaayante ngir liggéeyal Serigne Touba lu jëm ci dëkkam boobu muy réalisation boo xam ne ni ma ko waxee rek ñëpp ko amee njukkal ci taxawaayam boo xam ne mënutoon ànd nag ak tal dara moom Cheikh Mourou Sawa ndax ndénkaan loo xam ne ndénkaan la loo xam ne kun waajalut. ba nga mat sëkk kun waajur ba nga mat sëkk sëkk sëkk sëkk ndénkaan loolu mënoo ko réaliser waaye nag dafa fekk ni ko waxe woon rek waajaloon nañ ko ci cosaan ay ci waajur ba ba mat sëkk eh, am ba ba Sëriñ Tuubaa ah, doyloo woon ko dénk ko boppam dénk ko njaboot gi dénk ko jumaa ji te yaakaari Sëriñ Tuubaa du tas ci kenn kon loolu moo waral mu taxawoon ca taxawaayam bu mag boobu moom Cheikh Mamadou Moustapha ba eh, teg eh, xeer woowu muy jumaay tubaa mu nekk di nekk ci liggéey bi ci mi ci 1932 eh, ba 1939 guerre mondiale ñëw mu xaw a taxaw waaye ci 1940 nag ci la dëgg-dëgg taxawe mu bàyyi ko nag ak ñeenti sooroor nga xam ne ci 1940 fa la liggéey bi yam ndax guerre bi 1939 1939 moo doon guerre mondiale waaye Cheikh Moustapha de nekk na ci ba 1940 ba nga xam ne ay fenêtre moo ci des te taxaw na taxawaayu ñeenti soror mu bàyyi ko nag ak euh, Cheikh Mouhamadul Fadilu ndax moom 1945 euh, la génn àdduna euh, ñetti fan wuy ji Cheikhul Khadim mu mel ne taxawaay boobu mu ci am nag ci bis bi ñuy waajal def muy màggal gii di isrina muharram di màggalu umma islaami bépp nag ni ma koy waxee du màggalu Daaru Xuddoos Euh, du màggalug Serigne Cheikh euh, du màggalug euh, umma islam bi bépp ko bokk ndax bisu umma islam bi bépp la na Serigne Mour Moussa dafa waxoon ne juboo naa ci ak saa borom ba ku fi ku fanaan si ñu jéggal la say bàkkaar boo ci fanaanee nan bëggee na Sëñ Tubaa taamoo woon ku fanaane ci dëkk bi ci jàng alxuraan ak xaside yooyu mu waxoon kon bis la boo xam ne ni ma ko waxee ci bis yi gënal Sëñ Tubaa la bokk ndax daana ñaan ni ko Rasulullah sallallahu alayhi doon ñaane na nga def bis bi mujj bis bi gën ci sama bis muy bis bi may dajeeg yow noonu la ko Serigne Touba doon ñaane noonu la ko yàlla mayee kon bis la boo xam ne du bisub Daaru Xuddoos du bisub sëñ Mor Moussa du bisub Serigne Cheikh bisub Cheikhul Khadim la muy ki nga xam ne la tax ñuy ñëpp wut si tubaa dikk gum dikk Touba la ndax bu dikkutoon tubaa fa mu nekk rek fa la lépp yi nekk waaye nag li Cheikhul Khadim nekk tubaa la la sabab loola ak la ko fa indi loola mooy lépp kon moo tax ñëpp ko bokk di bés umma bépp Euh, euh, bis boobu nag mi ngi ko njëkk a taxawalee bisub kaaw la 11 avril 1936 la ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké njëkk a euh, taxawal ci ndigalul Serigne Touba ndax Serigne Touba moo ko bindoon ab leetar wanoon ko ko moo ko Serigne Massamba Mbacké wan ne ko nag bu bis bi bu bu bu dat bu maanaam bu app bi jotee rek na ko woote ñu dajee ci Touba jàng fa alxuraan wax ko kaamil ya waaye wax ko xaside yi muy jës bu mu mawaahiba muqaddamaat ak miimiya ci ndigalu Serigne Touba euh, këyit waat sëñ Massamba gisoon na ko waaye sëñ Mourou Moussa da koo denc waaye ba ca woote ba nag ca la wootee ñëpp dajee Touba ca ca jumaa ji euh, mu ñëw sëñ Massamba ñëw mbooloo mépp ñëw mu génn këyit ba ko sëñ Touba wanoon wan ko sëñ Massamba wan ko mbooloo mi dugalaat ko ci poosam muy màggalu gii nga xam ne moom la naan màggalu Daaru Xuddoos muy xaram doo doonoon ci ndigali Serigne Touba yi kon mu mel ne jàmbaari lislaam jooju di jàmbaari seexul xadim di donoy soxna Aminta Lo almardiya ci taxawaayam bu mat tamatale eh, ginnaaw bi nga xamante ne eh, eh, yëpp réalisé na ko ndax mel na ne ginnaaw seexul xadim la ca rek mu njaboot gi njaboot gi moom ginnaaw sëriñ Modou Moussa Cheikh du Fadilu waaye mboolem ginnaaw sëriñ Mamadou Cheikh Mamadou Fadilu Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Abdoul Khadir ak Cheikh Salihu Mbacké Cheikh Soaybu ñoom ñëpp Cheikh Abdou Samad ñoom ñëpp Cheikh Abdoulahi ñoom ñëpp ak ba ci ñu jigéen ñoom ñëpp sëñ Modou Moussa moo leen taxaw kenn ku ci nekk rek fa fa nga nekk moo la fa yóbbu maanaam kenn ku ci nekkoon fa nekk moom nga fa nekkaloon mu yóbbu la fa nga nekkal ko fa di ko liggéeyal guddeeg bëccëg waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk la war ca moom Cheikh Modou Moussa guddeeg bëccëg maa ngi ko doon def ci ñoom mu njaboot ko sëñ Tuubaa bàyyee woon waaw bàyyee ko ay baayam bàyyee ko taalibe yu mag yi muy mag yi nga xam te ñoo toppoon Sëñ Tuubaa ñoom ñëpp ñu laxasaayu topp ci ginnaaw Cheikh Modou Moustapha Mbacké euh, mu jaboote ñëpp muy ndénkaan lu loolu yéeme loo xam ne euh, teewoon na ko lu bari moom xañoon na boppam lépp moom Cheikh Moustapha nelaw ak lépp da ko xañoon boppam ngir batale gi ko Sëñ Tuubaa batale njaboot gi jumaa ji dikku Tuubaam waaw euh, sanc na tam ay dëkk yu mel ni tundoo di di fa liggéeyal yàlla ak sëñ Touba eh, tundoo di ci dëkk Cheikh Moustapha yi mu njëkk a sañ ci la bokk sañ ci ay kayel ak suraman raa ak ñaaxeen ak madinatu mbooba ak coon ak daaru naim ak taif daaru bayla ak daarul minan ak daaru minan dànki ak eh, nayde ak ciise bu cheikh ibrahima mbakke moom cheikh modou moustapha moom la ko jox ak eh, yeneen dëkk yu bari yoo xam ne cheikh moustapha Euh, sañtoon na ko ngir di fa liggéeyal euh, Serigne Touba lépp rek jëm ci jumaay Touba ji nga xam ne moo doon ak bëggam di bëgg Serigne Touba euh, ba 1900 bisub ajuma ñetti fan ci weeru baraxlu ci 1346 ci gàddaay gi dëppoo 14 juillet 1945 ci la dogal bi ñëwee ci moom ca kër ga ca Touba di bayti bokk ci barabi Serigne Touba yi nga xam ne ginnaaw Serigne Touba bi mu sañcee Touba sañcoon na. daarul xuddus di diis di kër yàlla euh, kër googu nag këru yàlla la goo xam ne euh, Serigne tubaa daana fa yendu daana fa xëy di di julli ak a tagg yonent bi sallallahu alayhi euh, bu ngoonee mu dem daarul minan kër Cheikh Mamadou Bachir julli fa doog a ñëw fanaan si tubaa Touba kër la woon muy jumaa ji maanaam Touba moo doon jumaa ji loolu lépp kër la woon foofu moo doon kër Serigne tubaa waaye daaru xudus nag la daan yendu liggéey lu liggéey yu bari Daaru Xuddoos la ko doon defee kër googu nag nee na Iblis musu faa teg ab tànkam muy Daaru Xuddoos Serigne Touba nee na Iblis musu ta teg tànkam ci Daaru Xuddoos foofu nag xam ngeen ne fa la liwaawul xam di nekk muy parasol bi nga xam ne moom la Moustapha alayhi salaatu wasalaam di dëppoo yowmal xiyam mooy mbaar moom nga gis moom lañ tuddee liwaawul xam di jàkka jooju ci kër Serigne Touba gi la newoon muy bayti ginnaaw bi leen génnee foofu ci sëtam bu tedd boobu di Serigne Mbacke Aminta ñoo ngi ciy ziare mboolem waa kër Serigne Mbacke ak waa kër Ibrahima Mbacke ñaamar yëpp ñu ngi siyaare sëñ Pape Soda sëy ak sëñ bu ak sëñ euh, euh, Buya Seck taarib si Ibrahima Mbacke ñaamar ak sëriñ euh, Pape ak sëriñ Mout Sey ginnaaw sa doomam jooju nag moo tabax génne jumaa jooju nga xam ne xamtub sëriñ Touba la bu mu bàyyi woon foofu ci bàkk bu sell boobu di daarul xuddus bàkk boobu denc dencub sëriñ Touba Euh, dencu sëñ Modou sëñ Tuubaa bu mu fa dencoon euh, sëtam boobu moo ko génne muy sëñ Mbàkke Aminta sëñ Abdoulaat joxoon ko digal ngir mu tax defar ko mu nekk jàkka di jàkkay sëriñ euh, Touba waaye di jàkkay sëñ Modou Moussa ndax xam ngeen ne foofu la sëñ Tuubaa génne woon ca xalwa ba ngir dem ci liggéey bi ci weeru koor ñaar fan ak juróom-ñaar ci la jote woon ndigal nag jógee Daarul Xudóos Euh, génn Touba di dëkk bu mu gënoon bëgg ci dëkk yi euh, ci 1980 1995 ngir dem Mbàkke Bari Jolof ngir mën a dajeeg tubaab bi kër googu ci la Serigne Touba génne woon xam ngeen ne kër gu tedd la kër kër gu barkeel la euh, yu jeexiti Serigne Touba yu bari mu ngi foofu ci kër googu di Daaru Xuddoos ñu bàyyi ko xel bu baax a baax dëkk euh, kër googu nag fa la Cheikh Moustapha génne àdduna ñetti fan ci weeru baraxlu ci 1346 di bisub ajjuma di la 14 juillet 1945 ñoo di ko foofu ci jumaa ji denc ko foofu euh, mu bokk ak Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma euh, taawam ba bi ko njëkk a wutu ak Serigne Mbacke Aminta yàlla na yàlla yokk seeni leer te taaf na ci barkeem te yàlla fayalu leen ci barkeem Cheikhul Khadim ginnaaw Cheikh Modou Moustapha nag euh, ki njëkk a euh, toog jotaayam ba mooy Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne moom la duddee Cheikh Ahmadou Bamba xam nga ne Serigne Cheikh sëñ Touba lañ ko ko duppee bokkoon nag yi nga xam ne Cheikhul Euh, gis na leen euh, xam naa buñ ci tuddee soxna mbenn mu sëñ fàllu euh, moom ci sëti sëñ Tuubaa yi mag la bokk ak sox ak ak sëñ Modou Hafiz mu Cheikh Mamadou Lamine Baara ak sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma zuriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabil Mustafa tajtahidu ñooñu ñooy sët tedd yooyu nga xam ne ay zuriya lan ay tayyibatan lan yoo xam ne foo leen fekk rek ñu ngi yeesal sunnas Mustafa alayhi salaatu wa salaam waaye wahab lana zuriyatan tuddimu al amala saalixa yaa xadimu ñooñu ci lan bokk ak ñi nga xam ne ñooy sët Cheikhul Xadim yépp mu mel ne Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma moomu doonay Cheikh Moustapha moomu nga xam ne ci fayu sëñ Mourou Moustapha la bokk moo njëkk a toog jotaayu Cheikhu Mouhamadou Moustapha ci 1945 euh, ba 1978 1978 euh, mu wuy ji boroomam euh, Cheikh Abdoul Khadir Mbacke moo ko ñaanal waxoon ca waxam ji siiw ja ne waxoon ne yàlla bu doon jeexal du ma nangu mu fay mu njëkk a fay Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma waaye ndeysaan eh, mu ne bu yàlla doon jeexal du du du mukk mu njëkk a fay sëñ Cheikh ndax xam na eh, eh, Serigne Cheikh taxawaayam bu am ci lislaam ak taxawaayam bu am ci Serigne ginnaaw Cheikhul xam nga ne ci ñi mag la bokkoon waaye taxawoon na ci yoonu murit taxawoon ci mbooleem loo xam ne rek bëggug Serigne tubaa la woon ca dëkkam bee ba lépp loo xam ne kenn mu sa ñemee ñaaj yoon wi ngir gaynde ak maam Fatma muy Cheikh Ahmadou Mbacke gaynde ma yàlla na ko yàlla fayal ci barkeb Cheikhul Khadim ginnaaw bi mu fi bàyyikoo nag ci 1978 ki toogoon jotaayam muy Serigne Mbacke Aminta ñu naan ko Serigne Mbacke Madina borom alquran euh, ba 1985 ci la Serigne Mbacke Aminta génn àdduna wuy ji euh, way juram wuy ji yàlla ñu yóbbu ko ci way juram Cheikh mu Moussa ak Serigne Cheikh euh, moom Serigne Mbacke Aminta Euh, ginnaaw 1985 nag ba 1986 euh, Serigne Mouhamadan Xarilo moom moo doon toogoon jotaayub Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim waaye ci 1985 1986 ba 1998 ki nga xam ne moo toogoon jotaayub Cheikh Mouhamadul Moustapha muy Serigne yu Mbacke euh, moo doon donay Cheikh Moustapha moo nekkoon ñeenteelu xalifa bu Cheikh Mouhamadul Moustapha ginnaaw 1998 nag ba 2004 Serigne Khadim Mbacke. moom moo toogoon jotaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye 2004 moo euh, la Cheikh Ahmadul Muxtaar xalifa Cheikh Moustapha kin duppee Cheikh Ahmadul Muxtaar moom sëñ ma jëng Fallo di rakk ci eh, di mag ci Cheikh Ahmadul moo moo fi nekk yàlla fi yàgg lool te wér ci barkeeb Cheikhul Xadim ak jëwrinam muy Serigne Mbacke muy Serigne euh, euh, Serigne Cheikh Bambali moom Serigne Mbacke Aminta ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal Daaru Xuddoos gépp Serigne Moustapha ak mbooleem ñi nga xam ne rek ñoo bokk Daara Khoudoss yàlla na fi yàgg lool te wér eh, ci barkeb eh, Cheikhul Khadim kon mu mel ni sëñ Gora eh, dafa muntoon a ñàkk rek bala noo yegsi ci bis ba ñu waxtaane fàttaliku jëmm ji sell jooju ci royukaay bu sell boobu nga xam ne royukaay la ni ko sëñ waa nekkee royukaay ci rasulillahi noonu la nekkee royukaay ci rasulillahi sëriñ Tuubaa waxoon ne mooy rasulillahi xarfan bi xarfin ñu fàttalante tuuti ci ab liggéeyam ak jikkoom ju sell jooju ngir ab yóbbal bu ñu yóbbuloo kon ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di wàcce foofu kàddu gi di wax ne yàlla suñu borom ñu ngi siyaare bu baax di ñaanal Serigne njaga eh, Serigne Ndiaga Baye Diop Baye bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon doonay yonent bi ndax al ulama wa al ulama warasatul anbiya yi Eh, borom xam-xam yi ñoom ñooy donoy yonent yi ñoom ñoo leen wóotu ci kaw suuf ngir jol jot li message ndax ñoom dañu jot li waaye jot li yëpp nag jot li waxtaane Serigne Touba ak mbaaxul Serigne Touba ak maam Cheikh moo man lépp te moom guddeeg bëccëg mi ngi woon ci waaroo muy waaru Seexul Xadim ak waaru maam Cheikh Rafal te xam ko lool di xam borom xam-xam bu rafet waaye di teg di lépp lu mu la wax rek ci alxuraan ak xasida ak nett li boo xam ne bu wér lay doon ci Serigne tubaa ak maam Cheikh Fall kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na ko yërëm te jégal ko te xaare ko àjjana suñu mbokk mi fi bàyyi ko Serigne Ousmane ñu ngi koy ñaan yàlla suñu borom yàlla euh, dolli ko yërmande euh, leeral euh, léppam ba mu dellu ci njaboot gi ci barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi dellu si di gu gërëm sëñ góor a baax ci taxawaay bi ndax at mu jot nii la koy defee waaye Cheikh Moussa moom lu ko waaye defal rek sa bopp nga ko defal di nuyu mboolem jullit ñi ñëpp ñu ni xam